thank you salaatu askan wi mbokk yi ñu ngi leen di nuyu dal leen ak jàmm ci xibaaru diggi bëccëg gii la ca gën a fës ci bopp xibaar yi am na ñetti doomi aadama yu faatu bees ci Covid 19 Sénégal xayma na lim ba toll na ci téeméeri doomi aadama ak juróom-ñett yu faatu ci coronavirus eh, bu ñu sukkandikoo ci xayma waa kër docteur tey daa ngeen ci dégg leeral yi ci biir xibaar yi eh, grève ñetti fan moom la waa SYTJUST eh, tàmbale tey ji di kuréelu syndicat gi boot liggéeykat yi wàllu yëngu ci wàllub yoon xeyaat nañu bànkaat seen loxo metti mooy ñàkk a sàmmonteeg accord ya ñu ne moom lañ jotoon a xaatim ak nguur gi ci atum 2018 daa ngeen ci euh, dégg ka jiite googule euh, kuréelu syndicat euh, coowal suuf ba tey coow la dakkagul bu weeso Ndakaaru Ziguinchor ak Gàddaay bokk na ci ca Cees yi tamit coowal suuf jib na fa daa ngeen ci dégg leeral yeeg Ibrahima Ndiaye ma ñu fa teewal ñaareelu xaaju xibaar yi dina ci bokk xibaar ñeel bitim réew laata ñu leen di dégtal xibaaru yéene kaay mbokk yi bu nes ki seema dikk ak yéen ci baatu askan leen ak jàmm ci xibaar yi ñu fas yéene ko doo rek eh, tolluwaayu Covid 19 ci Sénégal Sénégal léegi lim ga toll na ci eh, téeméeri doomi aadama ak juróom-ñett eh, yu faatu ci Covid 19 xayma tey ji wone na ne am nañ yeneen ñett yu bees ci ñi faatu ci bile feebar ka communautaire ya génn nañu yokk ak i tamit ka contact ya ña ne ca lalu hôpital lottu fa lool ne ca Sowetas lim ga toll na ci ñaar fukki doomi aadama ak juróom-ñaar dañ ci teewlu docteur El Hadji Mamadou Ndiaye ay askan wi. tey dimanche ñaar fukki fan ak juróom-ñett. ñeenti téeméer ak juróom fukk ak juróom benn test yi ñu def téeméer ak fukk ak ñaar ñoo ci positif juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent cas woon ak doomu jàngoro bi ñoo ci positif ak fukk ak ñett cas communautaire ñi may lim nii Colobane am na ci ñaar Rufisque am na ñaar Touba am na ñaar cité Cyprès am na benn Dalifort benn Kër Massar benn Kaolack benn Mbao benn Nord benn Plateau benn juróom fukk si ñu ñu woon wér nañu bësu tey ñaar fukk ak juróom-ñaari cas ñu sonn ñu ngi ci service réanimation hôpital yi ñetti malaat ñàkk nañu seeni bakkan ci bësu démb dimanche ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru juin mi ñu nekk ñeneen ñi des hôpital ñu ngi am tan ci bésu tey dalee ko ci bës bu njëkk bi kaay yi commencé ci Sénégal jot nañu wàññi fii juróom benn junni ak juróom benn téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñetti cas yi xam ne jot nañu doomu jàngoro yi ñeenti junni ak ñett téeméer ak ñeent fukk ak benn wér nañ si téeméer ak juróom jot nañu ñàkk seen bakkan mu des ñaari junni ak ñaari téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñett ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi ñaan askan bi mu ngi leen di woo ñu gën a sàmmante ak digle yi ñu joxe wasalaam. dañ ciy dikkaat incha allah na mu gën a yaatoo ba tey pënd wureegul euh, ca asbef euh, ndax ba ba léegi liggéeykat yaa ngi ñaxtu ne bëggatuñ fa seen kii di Myriam Mengu ma ñu kalame woon ci yoon ba yoon jox dëgg liggéeykat ya fa ne waaye nag ba léegi euh, munta génn kër ga xëy nañ ci amal te ñaxtu ngir méttitlu anam ya muy doxale foofe ca asbef dañ ci teewlu Pape Maguette Ndiaye mayor kàdduk liggéeykat ya àdduna ci micro Aïcha Diakhaté jàng guñu commencé guñu te bañ ñuy orienté ñu ngi toll si ñeenti téeméeri ndongo léegi si biir ñeenti téeméeri ndongo yi am nañu gedd ba nga xam ne léegi mu ngi des ah, ñetti téeméer ak fanweer ak euh, ñett depuis bon bon depuis ñu ñuy defloo ay euh, démarches administratives yi nga xam ni kenn xamul kañ lay jeex bon bu teyee ñu ne ñu entretien bu subaa ñu ne ñu bon visite médicale xam nga duñu rien que pour ñu bañ a réagir dañuy jéem a sax tàggale suñu biir euh, jaxase ñu pour que seen euh, cours en ligne yi mën a mën a am euh, te ñu seetlu si biir cours en ligne boo jëlee filière bu mel ni mécanique ñu ngi toll si 116 nongo léegi si biir 116 ndongo yooyu noonu vingt cinq seulement ñoo ci def cours en ligne mangoog euh, dañ ci dikkaat na mu gën a yaatoog yooyu leen dong ak seen i ñaxtu ñeneen ñu ñaxtu mooy liggéeykatu ASBEF ne tay nañu lool seen a kër ga di doxe ndax bëggatuñ fa seen euh, Myriam Mengu ma ñu ne euh, gannaaw buñ ko kalaamee ci yoon yoon daan na ko waaye nag munta jógeegum ca googule bërëbu liggéeyukaay di ASBEF jot nañ ci amal te ndefalu ñaxtu tey ngir métitlu anam yañ fa doxalee Euh, dañ ci euh, teewlu Pape Maguette euh, Ndiaye ñu ngi may xamal ne jàppandeegul daañu ci dikkaat incha allah na mu gën a yaatoo grève bu ñetti fan moom la kuréelu syndicat bi di waa justice juste di kuréel gi boot liggéeykat yi yëngu ci wàllub yoon xëy amal bankaat nañu seen loxo ngir méttitlu anam yi nguur gi doxalee ci seen dossier fàttali nañu sax nguur gi ne jotu tasaamonteeg lañ jotoon a xaatim ci accord maanaam déggoo ci atum 2018 gi ñu weesu dañ ci teewlu kii di maître Aya Boun Malick Diop mayor dugga ga jiite googule kuréelu syndicat àdduna ci eh, jokkoom ak baatu askan wi sunu xare bi ñu dëgmal ñaari ay bés du ñu koy wéyal gën ko taral altine bii ñu dëgmal muy ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru juin deux mille vingt dinañu dëgmalaat beneen xeexu ñetti fan soixante douze heures renouvelable li ko waral mooy ñun travailleurs de la justice yi du ñoo takku ngir ñoŋal li nga xam ne ñoo ko moom muy suñuy intérêt matériel et moraux fas yéene yiir suñu dignité ah grève bii nag ñuy def am na conséquence yu doy waar maanaam mi ngi yàq qualité service public de la justice pouvoir judiciaire te mi ngi yàqal sénégalais yi loolu nag li ko waral kenn rek moo ko indi muy maître Malick Sall ndaxte bañ ko falee mu nekk ministre de la justice président Macky Sall da koo jox feuille de route bu leer nañ te ci feuille de route boobu defar mbiru travail de la justice yi mi ngi ci waaye moom bi mu fi ñëwee ba tey dafa nekk li nga xam ne ñun mën nañ ko woowee déni de devoir et de responsabilité maanaam deful liggéeyam li ko président bi santoon moo tax ñun ñu gis ne comme daf ñoo yàqal te ñun wax nañ ak moom ci njekk ak teraanga ba sonn faalewuñu nañ jàkkaarloog moom jàmmaarloog moom te lu mu ko jaral rek jaral nañu ko lu ko ëpp ndaxte li ñuy laajte ñun ay Sénégal lañu yelloo nañ ko te am nañ ci droit te fii lañ koy laajtee fii lañ koy jëfandikoo ñoog suñuy njaboot kon boog na ko xamee noonu na ko askan wi ñëpp xamee noonu leneen ci xibaaru njàng meek euh, njàngale mi euh, toll na tamit ci juróom benn fukki euh, million ak juróom benn fukk ak benn yoo xam ne juróom benn téeméeri million ak juróom benn fukk ak benn yoo xam ne dañ koo jagleel financement mu ñeel daara yi waaye ci googule koppar jor gi ñu denk wàllu njàng meek njàngale mi Mamadou Talla def cee teq lu bëri lu toll ci juróom ñaar fukki million ak benn bu dugal feneen foo xamante ne wute na lool ak dara euh, di kaddu yi euh, tukkee ci damboj njiital CUSEMS authentique ne dàqul sax ba kalaame jëwriñ gi fu mbaxana doone benn dañ ci teewlu dambooj ci baatu askan wi ñu may xamal ne jàppandeegul daañu ci dikkat incha allah na mu gën a yaatoo euh, kuréel gi boot euh, ña ñaxtu seen kër foofe ca gàddaay ba léegi euh, ña nga ca ne xel xalaatul ñu deltu ginnaaw seen ñaxtu googule dàq ñu sax ba clamé ci yoon takk der yal leen doon fitnaal keroog ci seen tendefalu ñaxtu dañ ci teewlu Cheikh Traoré mayor seen kaddu ci micro Mamadou Dieye plainte bi ni mu tëddee mooy jëf nga xamante ni police nationale jëf na ko ci keroog manifestation yu amoon gàddaay ñëpp teg nañ ci seen ba vidéo yeeg image yi ñëpp historié nañ ko ci kaw loolu it euh, blessé yooyu nga xamante ni amoon nañ ko seen état dafa gën a aggravé wu ñu gisee loolu gis noppi gi nga xamante ni état du Sénégal noppi na ñàkk lànk bañ ñoo faale ci la collectif si nag mer fipp mais incha allah dinañu déposer plainte euh, pour contre état euh, bi nga xamante ni moo jëf jëf na ci suñu xàmmee ko ci xàmmee bu leeral euh, ci dossier bi nga xam ni mooy jàkkaay euh, ginnaaw bi nga xamante yoon atte na ba cour suprême bi nga xam ni mooy yoon bi mujj atte joxe ay dogal ñu lànk bañ koo def ginnaaw bi nga xam ne état ba woo ñu biir palais lu tolloog ñaar ba ñetti ko la yemale dinañu jàppale dimbali ñu joxaat ñu suñu suuf gunge ñu ñu tabax ba keroog ñu dëkk incha allah te loolu it defu ko kon ñaari mbir yooyu yëpp nga xam ne ci état la lonku benn ci ñaar yooyu defuñu ko ci la collectif bi nag ne dañuy dem ci terrain bi def suñu grève de la faim am ñu xam ne loolu moo am ci lañ ñu fekk foofu la ñu waroon a def defuñu ko lañ ñu waxoon defuñu ko waaye ba ñu fekkee foofu jëf nañ ñu jëf yoo xam ne àdduna ñëpp teg ñu seen loolu moo waral ak euh, keroog lay am am parce que ba ñu ñëwee bëgg ñoo génn ci terrain dañoo lànk ne leen bi fi génn ndax am nañu droit xiital ginnaaw ba nga xamante ni tey la ñuy ci noonu la ñuy jëfee yooyu ba nga xamante ni teg nañ seen bopp teeluñ si deux cent cinquante trois maisons la ba tey ci coowal suuf la ñu desandi dem ca diwaanu Thiès kuréel gi boot euh, ñi moom lotissement euh, Bala mbay foofe ca Thiès est gisoon ne daal booba léegi dañuy caxat-caxate seen suuf sa am ñu jóg bëgg ko akimoo ci anam yu dëppoowul ak yoon boo tax na jot na ñëw dànkaafu nguur gi na ci teel a wax laata muy jur leneen dañ ci teewlu Ibrahima Ndiaye collectif bi ñu joxoon ay parcelles ci lotissement balaa Mbaye nekk ci commune Thiès est ñoom day mer ba futt la def ñu ngi jéebaane caxat-caxate bi ñuy def seen i parcelle Mabéri Jaxate mooy président collectif bi lotissement bala be nag ñoo ngi ko defaroon 1995 bu doonoon juróom-ñaari téeméer ak juróom-ñetti parcelles yoo xam ni dañu koo jagtale woon particulier yi ak junni ak ñetti téeméer ak juróom fukk ak benn parcelles yoo xam ni dañu koo joxoon fukk ak benn ay coopérative d'habitat boolewee seen day nekk ñaari junni ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñeenti parcelles. loolu la doon te lettre yooyu nga xam ni moo ko jagleeloon nit ñi ñu ko jox lettre yooyu yëpp gouverneur Abdou Karim Camara moom moo ko signé mais mënuñu cee jot ndax ay samba yoo xam ni nii saa bu ñu xëyee ñoo ngi lal ay pexe pour mën a fexe ba nu ñu akimoo béréb boobu bu nu sukkandikoo ci kàddu collectif boobee nee nañu autorité administrative yi territoriale ak domaniale bu Thiès ñoom ñëpp saisir nañ leen ngir rek ñu wàllu si leen régler problème suuf soosee. képp ku di kilifa ci réew mi moo xam gouverneur la moo xam préfet la moo xam sous préfet sud moo xam maire la di maireu ville mbaa maireu est bi nga xam ne fi la bërëb bi bokk. ñoom ñëpp gis nañu leen mais ñoom ñëpp dañoo tànqamlu ñi nga xam ne ñoom la ñu joxoon parcelles yooyee ñoom sax nee nañu xamatuñu sax fu nu jëm ak ku nuy waxal moo waral ñu ngi woo njiiti réew mi mu ñëw wàlli si leen régler leen jafe-jafe yooyee balaa béy di mbuus. tàmbalee ci président de la république ay ministre ak ñi nga xam ni Thiès ñun ñoo leen fal ba ñu toog tey fii ñu toog ñu xam ni mbir mi. lépp dañ ko war a teg ci yoon ndaxte kat ñun bañuñu ci ba ku bëgg faagaagal suñu moomeel balaa looloo am di nga jéggi suñuy niiw. Thiès Walfadjri rajo TV Ibrahima Ndiaye. Ibrahima Ndiaye ñu ngi koy jaajëfal gannaaw fukki at benn ca ñu bay seen suuf foofee ca Kataba 2. Euh, ca commune bu Djinaki ca Casamance euh, béykat ya fa ne jaaxle lool gannaaw bu ñu jotee ab kayit bu ko ca préfet gox ba bi leen ne daal bu ñu bu ñu laalati googule suuf euh, loole nag tax ñu amal seen tendefalu ñaxtu ca Kataba 2 ngir mettitlu la xew ci jamono ji dañ ci teewlu Amady xale Jemme affaire bi lëmbee na ci département de Bignona ci début de saison des pluies bi population yu village yu Kataba na nekk ci commune bu Kataba 1 ñoom mënuñu comprendre euh, pertinence bu sous-préfet bu Kataba 1 bi nga xam ne bind na ko le 6 juin 2020 ci premier article am euh, tere leen rek li nga xam ne loolu mooy beneen exploitation ci euh, suuf yi nga xam ne mi ngi si diggante entre ñoom seen dëkk nekk ci commune bu Kataba 1 ak dëkk bu Kawane bi nga xam ne dafay dépendre rek ci dëkk bi ñu duppee Karong nekk ci mi ci yi. mais eh, arrêté bi moo ñu jaaxal quoi waaw parce que bu ñuy liggéey fii àll bi kañ ngeen dugg fii de fii àll boo xam ne ku xamoon fii nga ñëw tey nga gis fii àll bi nu mu mel doo yaakaar ne nit moo ko mën a liggéey nii ren fukk ak benn bu ñu commencé liggéey fii bon koo xam amul machine. laxal nga yaakaar nga liggéey ba léegi nga commencé jiw commencé jëmbat ay ay garab gisoo garab yi ñuy jëmbat population yooyu mobilisé wu si week bi rek si suuf soosu pour ñaaw lu décision sous-préfet boobu bi nga xam ne ñëw na rek pour jaxase mbir mi pour ñoom euh, décision boobu dafa contradictoire soo xoolee rek li nga xam ne loolu autorité yi wootee si li nga xam ne loolu mooy autosuffisance alimentaire parce que moom ci boppam ñëwoon na ba fii pour mu ñëw gis lan mooy problème bi na ba fii mu wër espace bi ba pare mu ne léegi arrêté leen léegi ñu liggéey bi njëriñ bi ah mën a dellu ci moom waaw dem nañ ci moom moom moo ñu jox arrêté bi loolu moo ñu jaaxal ah xam nañ ne ñun coono rek la ñu la parce que koo xam ne amul feneen yaakaar lu dul fii léegi soo ko arrêté ah moom lu ñuy def xanaa mu mu nekk ci coono rek. ñoom lancé nañu benn appel kooku di président de la république si conséquences yi nga xam ne euh, yooyu la. dañ exploité domaine boobu di jur foofu si localité boobu. bu bu baax si ñun am lu ñuy lekk surtout surtout xale yi nga xam ne ñuy jàng ni ñuy jànge du lu ñu a jàppale ñu jàng loolu moo tax ah bëgg nañu président bi. nañu dimbale. population yooyu lu ñu bëgg mooy autorité administrative mu indi euh, réponse euh, bu gaaw si situation bi nga xam ne ñu ngi koy jànkonteel euh, pour ñu mën a profiter si li nga xam ne loolu mooy début de saison de pluies bi nga xam ne lu muy annoncé rek mooy campagne agricole bu am solo Ziguinchor Amady Khalilou Diémé pour la radio télévision Walfadjri ñu ngi koy jaajëfal Amady Khalil Diémé dañu àddu ci wàllu dem ak dikk gannaaw ay at a ngi nii mu doon dem euh, dikk ci diggante banlieue bu Ndakaaru Thiès ak euh, itamit euh, banlieue bi petit train bleu bi am na coppite yi ci am ndax léegi doonatul petit train bleu waaye nag grand train du Sénégal lañ ko duppee lépp nag ngir gën a ñongal lépp lu jëm ci wàllu transport ferroviaire maanaam jaarale dem ak dikk ci wàllu raay yi dañ ci teewlu Omar Khatab Silla. ba ñu commencé TER bi ab xeer ko foon maa ngi foon tey ñëpp gis nañu daanaka sotti na li tardé leen coronavirus bi mais bañ paree ci loolu président dafa indi li ñu wax ay réformes institutionnelles axé ko sur la stratégie jël ministre boo xam ne ko nommé pour wàllu chemin de fer kooku jël tëgg lu ñuy wax nouvelle politique ferroviaire nouvelle politique ferroviaire boobu mi ngi mi ngi jugee ci plan Sénégal émergent ñun tamit ñu sant ñu ñu liggéey li ñuy wax plan de relance du transport ferroviaire ñaari réformes yu am solo am ci muy li ñuy wax société de patrimoine ak société d' exploitation société de patrimoine bi am na lu fi amoon kër gu ñu wax doon wax ANCF agence nationale du chemin de fer ak Dakar Bamako ferroviaire ñu jël leen benn wàll ci Dakar benn genn wàll gi ci dakaar Dakar Bamako ferroviaire war faa dem. société d'exploitation ñu ne petit train de banlieue dañ laa santoon ngay dem ci banlieue bi dakkalal loolu teer bi wutu la fa léegi na nga xool noo demee ci biir réew mi. moo wax la sànq ne la chemin de fer du loo xam ne ab ban la booy xel xëy xëy xëy daaj dafa am lu muy lu mu lu mu wundu dafa am nu ñu koy doxalee alors loolu projet la woon liggéey nañ ko ba pro autorités yi validé ko. léegi ñu ngi ci dimension programme du suba nag du gannaaw suba waaye gëm naa ne yàggatul te ñi doon jéem a jam njiitu réew mi naan ko xam-xama ma nga ak gis gisa ma nga yemoon jam ñaaju yaakaar naa ne li leen weddi mi ngi tàmbali na déjà muy société de patrimoine bi ak société d'exploitation bi nga xam ne yàlla dogal na ñun ñoo ko yor suñu jëmm ji euh, ci ndigalu président de la république te incha allahu rabbi gëm nañ ne euh, Sénégal yi dinañ gis changement bu am solo ci chemin de fer ndax duñu moom suñu bopp mukk ci wàllu koom fii amuñu chemin de fer boo xam ne de qualité la lu aju ci wàllu licence de pêche yi kuréel gi boot euh, mareyeur Sénégal jóg nañu jàppal tànk jaru ngi ñu dénk wàllu napp gi dànkafu nañu tamit gay pêche nu mu bëgg a doxalee ci yooyu les licences de pêche ne du ngéneel euh, ci euh, ndoddu nappkat yi dañ ci teewlu Baye Malick caw mi yor kàddu googule kuréel àdduna ci micro Théodore Semedo ñu ngi may xamal ne jàppandegul ci euh, machine bi Baye Malick caw euh, mi yor kàdduk kuréel gi boot mareyeur yu Sénégal àdduna ñu ci ci wàllu licence de pêche yi jàppal nañu tànk sax jawriñ gi ñu dénk wàllu napp gi ne amul lenn loo xamante ne mun na ko indi ci gàllankoor ci nam ca doxale ci yooyu lee licence de pêche dañ ko ciy teewlu ci baatu askan wi. demoon nañ ci audience ñoog waa UNAPAS mooy union nationale de pêcheurs en activité bañ ñëwee ministre bi nag amul benn accord bu mu signé donc ñun na su na suñu xel dal parce que bateau yooyu nga gis noonu ñoom ñoo yàq géej gi bateau yooyu ñun bu ñu tooyee gisuñu jën ñoom ñoo tax ñoom ñoom gars yi pex ak ñooñu rek donc ñoom ñoo ay bateau kon ñoom bu ñu ne ministre yi day signé ay bateau ñoom nañu wax seen bateau ba pare gàcc bu sàcc bu yuuxu sàcc yi la te ministre bi nee dina def audit te bu defee audit lépp dina leer kon yàlla ko yàlla jàppale si mission boobu muy def

comme que loolu la man du ma signé benn licence te lii fi nekk dinaa ko lëñbatu ba xam nu mu demee. ministre bi liñ ñaan mooy la mu waxante ak ñun sa audience ba mooy dina def audit flotte bi te bu ko defee mooy gars yi pes ak chinois ak turc ak coréen ñëpp ci am bu ko defee moom pouvoir dinañ xam kan mooy yàq géej gi que géej gi bu ñu ko yàqee ñun ñun ñii ñoo ñun ñii dul am dawal leneen ci xibaar kuréel gi ñu duppee eh, maanaam mouvement valeur ci Louga jot naa yëkkati ndimbalam ci wàllu dund jagleel ko yi tamit artisan yi bootu ci kuréel gu ñu duppee Revas eh, doon ay transporteur ak ay chauffeur lépp na ngir mun leen a taxaw fu réew mi toll ak i tamit eh, soññaat na leen ngir ñoo jublu ci xeexum coronavirus bi dañ ci teewlu Omar Kayre ca Louga. bàyyeeku ci jamonoy mbas mi nekk lu jaaxal lool Umar bun Xataab Silla président mouvement valeur bi di woo sénégalais yi rawatina ñooñom yi dëkk Louga gën a takkuwaat ngir mbas mi jóge fi feebar bi ñëpp gis nañ ne mi ngi yokk te li muy rayit mi ngi gën a bëri waaye dafa mel ni nit ñi bàyyeetuñ ci xel li ñu autorité sanitaire yi waxoon nañ continuer di ko respecté li pouvoir public yi aussi waxoon nañ continuer di ko respecté ci gaar yi wax nañ ko chauffeur pour que ñuy yëg seen oto yeeg yëpp ñu respecter les mesures d'hygiène de distance ak le port de masque. ñun ñëpp daal bu ñu àndee te discipliné xam naa ne yàlla mun nañu gën a dimbali. ngir gën a taxawu ay ñoñom yi dëkku Louga ñu mën a jàkkaarloog mbas mi waaye tamit gën a respecté mesure barrières yi Oumar Boun si la njëkkoon na jox lu toll ci 400 familles ay denrées alimentaires ay produits d'hygiène ak i masque bi yoon nag ñi nga xam ne ñoo di Revas bu Louga ak chauffeur yi nga xam ne ñoo bokk ci mouvement ñooñu la taamu ngir jàppale leen bi nga xamee ne ñëw nañ fii Louga di teg mouvement bii di mouvement valeur dañu gis ne chauffeurs yi ak mécaniciens yi dañ cee jàpp bu baax ñu jàpp ne jaadu na ñun ñu def action de solidarité jëmee ko ci ñoom ndax feebar bi metti na état du Sénégal mi ngi ciy def lu mu mën ci ndigalu président de la République donc jaadu na aussi euh, ñun ñi nga xam ne dañoo nekk ay autorités dëkk ci dëkk yi ñu tamit ñu jàppale état bi. président Revas bu Louga ne am na mbégte lool ci taxawu bi nga xam ne président mouvement valeur taxawee na ko artisan yi nekk ci Louga. franchement parler ñun waa Revaas su suñu gannaaw président chambre de métier xaaliwaar foo nu soxlaa guddi ak bëccëg tàkkusaan timis ñu ngi sa gannaaw ndaxte sa sincérité moo tax loolu gannaaw cérémonie de remise boobu Umar bun Xataab Sila daa dinay nag def ab tournée ci ñaar fukk ak ñeenti daara yu nekk ci commune bu Louga ngir nag dimbali leen ci ay masque waaye tamit sensibiliser leen ci ni nga xam ne nooñu nañu war a taxawee ngir mën a xeex ak mbas mi jël mat juróomi junni parce que fii ci biir Louga mais li ci ëpp ci xale yi lay jëm ak ñi nga xam ne ñoo ànd ak ñoom am na ci ñoo xam ne gis nañ ne ni ñu toogee xaw naa jegewoo am na ay sijaada yu leen mouvement valeur nar a jox rappelé leen aussi ne leen virus bi mi ngi fi Oumar Kairé Louga Walfadjri ñu ngi koy jaajëfal Omar Kayre ca diwaanu Louga yegsi nañ ci dossier bés bi ñu jagleel ko njàng meek eh, njàngale mi ak école bi tijjiwaat ay buntoom jëm ci classe d'examen yi eh, dañ ci dalal Moussa seen am sax ci Dakar ci yenn école yi gis nañ ni reprise cours yi daloon na xel wante nag ci yeneen région yi loolu dalul xel benn yoon li ko wone mooy jàngat bi ñëpp def rawat na G7 ni rek li manqué ci biir ouverture boobu dafa bëri El Hadj Malick Youm di secrétaire général adjoint bu SAEMS. Euh, tàmbale njàng mi am na. sunu représentant yi nekk Dakar yi nekk ci région nord région centre ak maanaam ci bët Saalum wax nañ ñu li nga xam ne moom lañ fa gis bu ñu jàppee ne tey li jëm bët gànnaar. ak li jëm ci diggu diggu dëgg bi muy dëkku réew mi ak euh, li jëm ci dakaar ak yeneen xel nangu na ne njàngale mi tàmbale na foofu terewul am na ay sooxe lu sooxe li sooxe nag foofu ñun ci li ñuy wax mooy boo demee tey da ngay seetu ne am na lu jëm ci wàllu maanaam euh, li ñu doon wax ne li mu jàngaan jàngaan yi bu mu weesu li ñuy wax ñaar fukki jàngaan ci classe bu ne kenn respecté ko leneen li ñu ciy dolli mooy tamit lu jëm ci wàllu jëmtuwaay yi tey boo xoolee du ñëpp ñoo amandoo mais tàmbali bi tamit li muy xaw a doxandi si li ñu gis gisagum ci région yi ma wax nañ wax ne tamit du fépp la am Sénégal mooy tey boo jëlee sud muy Tamba muy Ziguinchor muy euh, euh, euh, yeneen région yooyu yëpp Vélingara sax même le département de Vélingara ak yeneen Kolda foofu taw bi taw na fa taw yu am doole yoo xam ne tey tax na ba njàng njàngale mi tàmbalewul bi le directeur d'école nag ne ci école am rentrée bi daloon na xel ndax lépp yemboon na mais bi ñu déggee ne aussi dañoo war a ubbi ñun lépp li waroon am defoon nañ ko waaw ndax euh, suñuy parents d'élèves dañ fi am association des parents d'élèves bu ñu samp si biir école bi bu ñu jàppale donc euh, ubbiwaat nan le vingt cinq ah xale yi li ñu ñu laaj yëpp ñu war ko di def pour aar leen ñun def nañ ko waaw léegi classe yooyu déjà wàññi nañ ko ba nga xam ne li ñu laaj sax nañu classe bu nekk ñaar fukki élèves ñun defuñu loolu ci Covid bi élève classe bu nekk fukki élève lay am ak benn buñ sokkandikoo ci porte parole bu gouvernement scolaire yi di Maguette Ba moom nag ñu benn yoon ndax lu ñu gis dalu leen xel commencé nañ am na école yu ubbi am nañu ubbeegul waaye li ñu mën a gis mooy ne école yu bari affaire yi li ñuy woy protocole sanitaire bi respecté wuñ ko rassemblement bi ñu doon wax am na fa euh, masque yi tamit gars yi soluñu ko tàngoor beeg lépp am na ñoo xam sax amuñu masque yu doy donc li ñu mën a wax daal mooy ne école bi lii ñu jubtee nii mënuñu koo continuer. G20 moom beneen gis-gis la am ci reprise cours yi lee moom nekk ni rek lii ñëw ci ginnaaw moo nar a gën a métti ndax dañoo sacrifier pauvre yi ngir doomu riche lan rek mooy parax parax yi euh, pour mën a sobe ay ay doomu borom barke yu nekk ci dëkk bi te yore seen i préinscription war a dem France jàngi loolu rek moo intéressé gouvernement bi yeneen examen yi intéressé wuñ ko loolu moo tax lawal biñ ko wax nekkoon ko na ko lawal ba décembre. ñu sauver élèves yi moom d'accord ci moom gouvernement parce que tout simplement xale yooyu nga xam ne am nañ ay préinscription nga xam ne maa ngi leen tudde benn ñebbe ci cin benn avion donc bu ñu ko amee man ma feesuñu ko ñoom ñoo war a dem jàngi septembre te fukki fan ak juróom ci mois de septembre au plus tard dañoo war a dem présenter wu ca université yi leen jox ay préinscription loolu tax nag ñoom il faut ñu organiser bac pour ñoom léegi nag bu ñu koy def bu ñ ko defee pour ñoom kese day fës ba mu ëpp mooy Sénégal dafa décider ni xale yi ren dañuy tëb classe xale yi nag comme dañuy tëb classe bu ëllëgee musiba dina dal Sénégal mooy dañuy créer benn génération Covid 19 boo xam dañ leen di sacrifier bàyyi leen ñu jàll te waxtu yan waroon a jàng duñ ko jàng. ci beneen côté bi sax di G7 laajte rek ana ban avenir la ñii di 3 millions élèves yi nga xamante ni ñoo fara ci yeneen classes yi am. tey 551000 njàngaan ñooy dellu wante am na ñetti millions yoo xam ñu ngi seen kër toog ñooñu tey est-ce que dañ leen di tëb rek jàllale leen ñu dem classe supérieure déedéet. am na si ñoo xam ne bokkuñu ay li ñu am si ay heures yu retard kon foofu laaj na nguur gi taaj ay waxtaan yoo xam ne day taataan xalaatu ñi seen xel màcc jëm ci loolu. loolu nag tax tam ba coordonnateur bu g di Dame Mbodji ni rek jëwriñ bu saytu walla njàng mi dafa wone ñàkk mënam te lu mu bëgg rek na leen abal. ñi moom euh, cuuneem moom dootul lu ñuy werante ministre kuy wër ministre bu cuune njàng mi gëj naa am ministre bu cuunee nii moom Mamadou Talla Euh, xamul fu muy taxaw xamul lan mooy enjeu wu njàng mi. comme ñun dañu demandé ñu tekki ndoom ndomba tànkam parce que ministre Mamadou Talla ñun contre ñu ko dañoo gis ni mënul te jàng moo yore réew kuy tëñax tëñax yi waru koo yor. syndicat d'enseignants yi parents d'élèves yi ba ci sax élèves yi ñoom ñëpp jàpp ni reprise cours yi amul benn succès ndax dafa tàgga tebe loolu nekk tax ba yenn acteurs yi naan rek li manqué dafa bëri ci reprise bi le ngoog euh, ñu ngi koy jaajëfal euh, Moussa seen mbokk yi ci noone yegg si nañu ci njeextalu xibaaru digg bëccëg gi euh, bu nes ki seema dikk ak yéen ci xibaaru yéenekaay yi dal leen ak jàmm coronavirus am ñu mu dal ci ay jegeñaale njiitu réew mi Macky Sall Walf Quotidien tax njiitu réew mi Macky Sall jël dogal daal di ber boppam kenn mënatu seen ma nga lelu ca Popenguine yéen cabinet lu bari mun na ko faa nas bokk na ci yeesalaat gouvernement bi maanaam remaniement geneen doon luy xeeñ ci jamono ji Walf Quotidien Popenguine googule ay dogal yu bari mun na faa tukkee bu ñu deful ay ministre yu bari mun nañoo maanaam njiitu réew mi Macky na leen jëlee ci gouvernement bi indi fa ñeneen Walf Quotidien déggal ci loi d'habilitation bi assemblée nationale joxoon jiitu réew mi Macky Sall jëmoon ci état d'urgence bi mu ngi ci tànk jeex ñaari fan donga ci des yéen cabinet ndax dañ ko dàbbaliwaatam déet doon lu tënk njiitu mi Macky ci jamono ji ay kàddoom ci l'observateur docteur Abdoul Aziz Mbodj bu université bu Bambey gis ne loi d'habilitation kenn mënu ko yokk njiitu mi Macky mënu ko yokk fekk jaarul ci assemblée nationale Mamadou Diop Decroix ne lii du dogal saay bu mu ko neexee Mamadou Lamine Diallo ne bile doxalin dafa jëmul kër ne bu sañoon assemblée nationale dootuñu jox loi d'habilitation njiitu réew mi Macky Sall yéene Vox Populi di ñu xibaar ne décret présidentiel ba yemb na ba tax na njiitu mi Macky mun naa yokkaat état d'urgence ba couvre bi critique ne ci jamono joo xamante ne feebar bii di coronavirus mu ngi wéy di def musiba di def lorange yéene kaabi dootuñu fàtte mukk weeru juin moom faatu ci yéenekaay bi di Le Quotidien xëy dalal docteur Malick Diop bu AFP gis ne li fi mun a fànq maanaam li fi mun a jëlee coronavirus faw ñu amal confinement total faw askan wi kenn ku ne toog ci sa gox wala toog sa kër su ko defee ñu mun a daanandoo lii di coronavirus yéenekaay bi di Les Échos ne xalif général des Tidianes di Serigne Babacar Sy Mansour àdduna ci ma ngay fàttali ne bile feebar bu muy soog a door ci Sénégal nguur gi dafa jëloon dogal tënk askan wi kenn génnu toon waaye tey ci jamono joo xamante ne feebar gaa ngi gën di am doole bakkan yaa ngi gën di rot ci la nguur gi jël dogal bàyyi askan wi ñu doxi seen soxla gannaaw bi nguur gi waxee ne nañu dund ak feebar bi xalif général des Tidiane ne loolee musiba la ndax ab responsable gu démissionné ci responsabilité am la waroon nguur gi ci bile feebar moom la defut ba ko ñaareel ba ba léegi nguur gi jotuta leeralal askan wi li xew ci bile feebar ay kàddoom la fekk ci vox populi moom xalif général des Tidiane di Serigne Babacar Sy Mansour mi xam le nguur gi dafa seppi loxoom dafa teggi loxoom bi ba tax na wi ñu toll sa bopp musiba mun na laa dal maanaam mun ngaa dee ndax ba ba bi le feebar Serigne Babacar Sy Mansour ne nguur gi ngelawaay wax leen askan wi li xew gindi leen ci kumpa xamal leen ne bi feebar amuñu garabam te booba léegi kenn xamagul lu koy faj ba ñaareel xalif général de Tidiane daal di ci jëru gi ñu denk wàllu paj mi di Abdoulaye Diouf ngir mu amal janook taskatu xibaar yi leeralal askan wi xamal leen ne bi feebar amuñu seen garab nguur gi def cee mënul dara na nguur gi wax li fi am te bañ a yërëm kàddoom maanaam bàyyi masla bi xalif bi daal ya ñu jagleel xeexum coronavirus di fond force covid 19 ak nañ ca war a taxawee doomu sénégal ya ca bitim réew yéene cabinet ci afrique du sud coow juddu na ca ay immigré yu bari yu fa ne ne gis ñu seen bopp ci googule koppar ne luubal def ca am toll ci juróom fukki million daal nañ ci joxoñ baaraamu tuuma ambassadrice bu sénégal ci afrique du sud di Safiatou Ndiaye mi déggal ci biir yéene kaabi ne ca afrique du sud ne bépp immigré sénégalais ga ne jox nañ la toll ci fukki junni Safiatou Ndiaye ne ci bile dossier dafa am ñu ko mbuboo bug cee dugal politique libération xëy dugg ci kaw gi maanaam rural bi ak jafe-jafe suuf gancay dund jëre cabinet ba ci ñetti téeméeri hectare ya jox waa Sedima ca Ndengeleer te askan wa jóg ñaxtu lu toll ci ñaari téeméeri hectare yu toftal fanweer ak juróom benn waa du Sahel ca forêt classée bu Bandian ne jot na Babacar Ngom addu leeralal askan wi xew ci dossier coowal suuf ca Ndengeleer Moustapha Diakhaté ci biir yéenekaay bi xamle ne lu jiñ du kenn ku dul nguur gi ne njiitu réew mi Macky Sall dafa jalgati loi gi jëm ci wàllu suuf kenn ca ña yeewoo ca ndengeleer ay kàddoom ci biir yéenekaay bi di góor gi ngal ngoor jon mi xamal Babacar Ngom bu Sedima ne dundal ay cuuc moo la yitteel waaye ñun waa ndengeleer dundal askan wi moo ñu soxal Basirou Diomaye fay njiital cadre Pastef fippu na ci biir yéenekaay bi di lii quotidien Basirou Diomaye fay ne li xew ca ndengeleer dafa uppi loxo ne tey Babacar Ngom bu fa akimoo suuf ci anam yu déppool ak yoon du fay ne kenn waru leen seen suuf yéene kaabidi l'évidence ne na impôt domaine bu géejawaay di doxale ci suuf pa yeewoo lo sole ne bu dee ca littoralu ndakaaru ak coow li fi am fan yi am ñu gis ne ay jegeñaale njiit réew mi Macky Sall laale nañ ca Seydou Gueye ay kàddoom ci biir yéene kaay bi jot naa weddi tuuma yi ni mel ne amul kenn ci jegeñaale njiit réew mi Macky Sall ku ñu mun a tudd ci coowal suufu littoral bi leneen ci ay kàddoom ci lo soleil moom Seydou Gueye ne nguur gi dina jël matuwaayu mot sëkk ngir sàmm ak aar littoral bi lee yéene kaay bi di direct news ne coowal ceeb gi jot naa teeri ca section de recherche bu Colobane tey ji wóolu nañ fa njiital leeral askan wi di Omar Faye ngir mu leeralal askan wi ceeb bu yàqu gañu ne moom moom la nguur gi jox askan wi rawatina ca Rufisque ak ceebu kawsu gam fa séddale a ngir kalaame ko ci yoon direct news ne moom Mansour Faye waroon na leeralal askan wi ñeen fukki milliards ak juróom-ñaar yu mu jox ay fournisseur te yàggul dara ay dëmbooj doon leerlu ngir assemblée nationale mun cee dalal Mansour Faye yéena kaab di laas li ñu xibaar ne Sandaga ñu ngi jëm ci daaneel ko ajjuma ji ñu jëm yéem tax jaaykat ya fa ne tàmbale ñaxtu ne bu ñu sañoon ñu wutal leen feneen yéene kaabi Dakar Times ne nguur gi gis na feneen maanaam yooyu la jaaykat ya marché Sandaga daañ leen tuxal ca champ de course ñu xibaar ne ñetti fan weeru juillet gi ñu jëm ca la nguur gi jël dogal fas yéene daaneel marché Sandaga yéene kaabi waa Grand Place ne ndax yoon dina ko daanam déet moom Pape Alioune ma ñu tuumal ne moo faat Bintu Kamara ca Tambacounda Pape Alioune liga ci jamono ji Real mu ngi ci yoonu jël ndam li ci waxtu joo xamante ne barsa mu ngi yox yox yi mbokk yi lu nuyoo tàggoo tàggatoo jot na ci xibaaru digg bëccëg gi jaajëfal modufal mu mi ne woon ci machine bi mbokk yi di leen jaajëfal ci kóolute gi ñu yendook jàmm ak programme baatu askan wi yal na jàmm yàgg sax fi dàkk ci réew seen kër. mais yow xale bu ndaw yaa may toogloo suñu kër. doon xale. du ma tee sàkku wér. mais yow waane nga ah. restez chez vous. ii. toog leen seen kër loolu mooy musal seen bopp ak musal seen askan. toog leen seen kër loolu mooy musal seen bopp ak musal seen askan. restez chez vous. toog leen seen kër. Alpha Jerry. ginnaaw ba ko askan wi sàkkoo seen émission balance dina jagleel numéro spécial sur les prisons ñu ciy dalal gan gu rëy gan gu mat gan muy colonel Jean Bertrand bokkande directeur de l'administration pénitentiaire bu ministère de la justice ci biir waxtaanu mbokk yi dinañu waxtaane coronavirus bi nga xam ne dañuy wax ne dugg na ci kaso bi kañ la fa dugg ci yan anam la fa duggee ñaata détenu la laal ak tamit lan mooy information yi nga xamante ni am na ci wàllu googu dinañu waxtaane également dogal yi nga xam ne jëlu nañ ko di tere visite yi ci prison bi ak tamit lekk gi di fa dugg ndax dogal yooyu dañ koy teggi waaw wala déet dinañ ci am leeral nekk na yeneen mbir yoo xam ne dinañ ko waxtaane les réalisations de maanaam jéego jéego yi nga xam ne dox nañ ko ngir améliorer condition de détention ñi nga xam ne ñoom ñooy pensionnaires des établissements pénitentiaires dinañu ñëw ci également ci statistiques yi maanaam ñi caabi féete ginnaaw seen lim naka la toll ci 37 prisons yi nekk Sénégal numéro spécial sur les prisons ce mardi 30 juin 2020 à sur Walf TV ce encore du lourd bu ko kenn ute jànkonteel ay jafe-jafe rawatina ñoom ñi nga xam ne ay liggéeykat lañu moo tax ñuy jugé nécessaire tey jii fekk si leen am waxtaan woo xam daañu ko seq ak ñoom. dama ne ay liggéeykat bu ñu nekkee si ay benn kër alal dafa dugg ñu xam alal bi fan at fan la jëm lan at lañ ci def. de fii may wax yow ñoo raw coronavirus parce que lu tax mooy cas yi ñu yor ku xam oto xam ni nii soo amee oto bu bees balaa moo màgget mën nga fay bor ba bu màggatee doo problème mais fii may wax ak yow ñun li ñuy wax di faamee wuñu ku bëgg suba nga ñëw vérifier ko gaa ngaa nga nële baax ñun bu ñu gisee lu mu ñu diggoon lu mu waxoon dara am dara sottiwu ci wala une partie ci sotti danañ ko laaj bi lii ak lii nga ñu waxoon ba nga avant ngay jaay ba nga jaay ba pare fii yëf yi toll pour nga liggéey normalement normalement da nga war am force bu set ah am outil de travail yu baax sol tenue bu baax dugg liggéey mais actuellement Dakar Dem Dikk technicien boo gisee technicien Dakar Dem Dikk muy liggéey da nga yaakaar ne sax mécanicien mbedd versement IPRES yi dañu seetlu képp ku retraité Dakar Dem Dikk rek boo demee IPRES buñ la xoolelee sa sa sa say état état de versement yi dañ lay wax verse lu ñu la at bi verse lu ñu la at bi verse lu ñu la at bi te ñun ñu gis ne bi ñu dégg ci onze milliards yi nga xam ne moom directeur jot na ko dañ ci dégg ñu ne dugal nañ ci cinq milliards IPRES. tey Dakar Dem Dikk li muy souffrir nii présentement sur le plan social dañu am problème parce que à un moment donné dañu arrêté woon les prêts sociaux nit ñi